suukaru koor rek ku tas sa sëy ndax suukaru koor boo demee di nga ko waxanteeg yàlla. salaamaaleykum. waaleykum salaam. naa defal. maa ngi ngi si jàmm. am ngañ xool. kaañ. Ngoñ. Ngoñ. Baye. waaleykum waaleykum salaam. maa ngi na nga def waay. bu baax gën naa laa gis. baa ngi jàmm naka ci woon yi. alhamdulilah arikalla. sant bu baax waay alhamdulilah. arikalla baa ngi jàmm baax. sant yàlla bu baax. arikalla naka ci woon yi. toogal. Euh, Samb kii sama sama wëllëre la. moom la ma chinois yi bi ñëwee ca dëkk ba. moom lan ma booleeloon. waaye Bachang gi dañ ciy julli. waaw ah. Bachang gi dañ ciy julli waaw. waaw waaw moom lañ ma booleeloon. Hmm. bi chinois yi ñëwee ci dëkk ba mm. euh, lépp li nga xam ne moo doonoon ci wàllu liggéey beeg yëpp ak xaalis bi ni ko war a jaarale mm-hmm. ci loxoom la nekkoon moom mi moom mi moom mi waaw noo sant Njaay Njaay Njaay Njaay Njaay léegi nag xam naa toogaay bi ma toog ci dëkk bi xam naa moo ko xaw a moo xaw a yàgg mm-hmm. moo tax mu doon ma seet si mm-hmm. waaw euh, nettali ci euh, la booy Njaay la dàqee kii sama sama sama sama sama lépp la waaw xam nga mbiru këyit da cee xawoon a sàggan tuuti nag waaw ndax ñun moom am mbay rek la ñu xam léeg-léeg nag nga gis ku jógee village ba dëkk ba ñëw nekk fii ndakaaru doxal li ngay doxal waaye ñun mbay mi ci la ñuy lekk bu suur fat ci sunu ay soxla mhm. ñun daal bay dunde la ñu xam toog ci sunu ngor wallaay waaw léegi nag xam naa moom musul faale bëgg yëfi këyit waaw affaire bi sax fi mu toll nii carte d'identité bi rek a ci des ah waaw waaw carte d'identité daan moo des carte d'identité bi rek a ci des ah pare na ah na xam nga ñun ñu nekk fële waaw chinois yi waaw moom ngooñ ak gerte gi yëpp daanaka lu mu fay dugal si ay moom rek ko mën a dugal Sénégal xanaa xamoo àddina nga baal ma des na tuuti nit dootul jël ay gannaaw këram di ko def ci foos loo ti def yàq ko chinois yi récupéré ko ah fi mu toll nii dañ koy utiliser ah ginnaaw kër yi engrais jaratul de kër yi ci dañ koy récupéré des na léegi ku gannaaw kër ti di nga ko dencal sa bopp ah, xaalis la ah parce que bu demee bay exploité ngooñ mi a ah, attention ah adduna mi ngi dox ah hmm. moom de ah, baax na lu muy dugal si ay conteneur hmm. macha allah moom rek ma Eh, nga wéyal ko kaar kaar ah, macha allah waaw chinois yi cat bu leen dugg. chinois gerte gi am gerte gi man man. Hmm, yow lay wax waaw man sama bopp laay sóoraal daal ngooñ ji dama si amay commande yu bëri ay 35 conteneurs yoo war a ñëw pour nga xar yi dañuy xëdd. laa ah waaw xar yi dañuy xëdd foofu di waajal tamit tabaski gi. léegi nag moom nag dama doon xool dama doon xool bu pièce bi xaw toll ma mun a jël compte ko fii jël ko pour xaalis bi mën a yegg si léegi daal carte d'identité bi ci sàmb mii la des carte d'identité bi da kayitu juddu gi génn moom am na ko ko doon lijjantil ah olof Njaay nag neen kenn du joxe bopp rocc làmmiñam bàyyi ko sama loxo man maa ngi ci ginnaaw wax loolu la ma wax mooy carte d'identité bi fii ak suba dina pare bu yéexee ci moom la de déedéet amul problème xaalis gi dafa bëri de amul problème amul problème baax na comme waxee na ko noonu Sadak la naa rek Sadak la Njaay ma nekk si yoon Sadak la waaw na carte d'identité bi dina génn waaw bu soobee yàlla seen waay waay xaalis gi bëri na de ah waaw hmm. man de hmm. déwén kenn mënu maa tere bay bu déwén ak sama tool papa bu mag bi nekkoon ca boori Beltati. Ah. moom laa lay daggal xam naa ne moom boo ñëwee. buñ la ko labouré dañ maa commandé 155 conteneurs yi war a ñëw. oui moom pour déwén. ak tabaski quoi. xaaral ma kii mooy affaire boobu ma la doon wax keroog. waaw pour boo demee nga waxal ma ko sa waay rek. chinois waaw ne ñu ngi ci kayit yi. Euh, daanaka lépp daal ci loxol Samb la des. waaw léegi nañ kii moom moo kii yaale la. papa nga xaalis gi bëri na de. léegi daal macha allah jërëjëf Ndiaye. léegi daal yow. moom xam naa ne comme nee na suba wala ginnaaw suba dina génn. Mhm. yow naxanteeg moom rek. man waxuma loolu de lu ñu waxante woon defoo ko de. yow carte d'identité bi moo génnagul. man déglu nga kii bu yëgee ci yi dara rek mbir mi yàqu. ci këram na ko la suba dina génn. Mhm. wala ginnaaw suba bu génnee. Mhm. incha allah duma indi affaire bi teg sa loxo. lamb ji yow may doxal dossier bu léegi jox ko góoma avant jox la ma la waxoon bu carte d'identité bi génne ma jox la carte d'identité bi ak 100000 damay damay toj dil bi de. la. Ah, waaw léegi waxal gars yi rek ne leen sàmbang xam naa moom saa yi su paree rek bu soobee yàlla.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 59 75. Notre site internet www.cefas-du-6-sénégal.com. incha allah rabi dina indi carte d'identité bi ma ànd ak Samb nga wiire compte bi kenn ku nekk jël li nga moom mu jeex takk waaw kay mu jeex tàkk nag nga xam naa gars yi dañoo yàkkamti. xanaa day laaj lekk. <laughs> nee na naa ko jox juróomi junni paas bi paas bi da lay laaj ma ne ko nag na ma muñal na ma muñal parce que wax dëgg waaw waaye nag xam nga ni dara duggagul boobaak léegi maa ngi nii bu yàqee sa maa ngi nii bu doxee sa diggante ak chinois yi soo yoroon juróom ko mu dem bu affaire nga ko ci kii bi wala waaw ah, wax da nga may wax tey ma lijjantil la ko suba ndax du lu fi fanaan moom comme daa bette waaw fekkoon du fi yor nga juróom wala yor nga juróom wala ñaar ma dab ko rek waaw man fu mu toll nii fu mu toll sunu sunu sunu sunu sunu association bi nga xam ne lañ dajale waaw ab naa kees ga fi mu toll nii yow laa ko jox la neewoon ca kees ga yëpp àbb naa fa ñetti yoon kees ga gawuma ko gawuma ni sax bu fa desee bu ma baatee dinañ maa bal la la fa desoon buub ah! naa ko mu ko joxoon juróom de moom moom paas yi ah, ci la affaire bi gën a nooye ma ne ko juróom nag fanaanoo ma ko baax na xaaral ma delluwaat yeggale oh, waaw baax na waaw baax na jërëjëf waaw léegi ma noppi incha allah waaw nu mu gën a gaayo daal waaw mooy gën bu sobee yow sa waay yow de moom juróomi ko fayee ay àbb mun nga am bu de hmm. <laughs> boy Mati Njaay boobu ba léegi ndogal xale bu baax bi ci yàlla suñu borom waaye sama sëriñ bi temps yi bàyyi na ma de sëñ Abdallah Diouf man ay gàllaaj sax la ma gëj jox pour mu ëw ko man nag dafay nekkul ndax li muy toog daa bëriwul ci yàlla ah, ah, gi dafa saf nga ràcc. ah moom koor gi teel a ci man. ah moo am yenn nag gàllaaj yoo xam ne tey moom. Ah. du du du du du ma ko ëwee place bi fii laa ko ëwee. bëri féem ah, gàllaaj gi su koy aw du ma wax mm-hmm. gàllaaj gi fee laa koy awee ah mais damay toog ci kaw zeng ba ah bari nga ay féem xanaa xamoo am na yenn gàllaaj xam ne feuse li ma la rusul li ma la rusul wax la am na yoo xamante ni secret yoo xam ne du ma koy ëw maanaam àllam neen laay def naa def bu ma ko wax damaa woor am na yenn gàllaaj yoo xam ne du ma koy ëw ci bàmmeel laay taxaw xam nga yooyu yëpp tamit am na yoo yoo xam ne des fois fi jóg guddi romb la ne maa ngi ñëw mm-hmm. moo demee noonu ma soxla de ah. ba jàmm xam nga nag yow doo yendu ci kër gi boo xëyee da ngay dem waaw liggéey waaye kër gi bàyyi nga ni mu ngi wàcc kër gan kër gi bii nii waaw boobu lu ko wàccee pataas pataas man pataas mbaay menn pataas mu sell nii ci néeg maa la wax lii ah kon de xanaa diine la koy wàcce pataas boo xëyee dem hmm. am na benn xale bu jigéen bu koy seet si fii daal nii daal lay def dugg ak génn te li ma ci gën a métti mooy yow boo booy dangal ak di sol lu bon ak lu seere hmm. ba weeru koor ñëw hmm. xanaa mën koo noppal waaye xale bi daal lu bon sol teg ci di dugg ko génn bu ñëwee fata pataas ñëw dugg ak moom ci biir néeg bi loolu rafet na. ah. te li ma ci gën mooy waa koñ bi yëpp ñu ngi koy mbamb te buñ koy tudd xam nga duñ ne pataas ña dëkk ci kër gi la ñuy wax. Fausse loolu dëgg Fausse pataas mu sell mi pataas mi nga xamante ni saa yu ñëwee sama place des fois mu romb toog day waxtaan a man du mbiram amul dara jigéen. nga ne pataas a wax lii. fara doo fi yendu man maa fi nekk ak moom man nag dama wax ba sonn. Hmm. après si laa ne léegi dinaa la ko wax nga xool si man dem naa ci sàmm nag wax ko sax man mi wax naa ko ko parce que nag comme man Faraas xam naa yab na ma man mais yéen xëy na yabu leen bu ngeen ci waxee dina bàyyi ah loolu du fekkee nii la demee loolu teg sama xol da nga maa xamee ay fen ah, man kay moom a jaaxal man kay léegi li mi ah, ñëw naa fee di moom mu may daje dajee te du ma moroomam dafa perte bul dugg ci yooyu bul dugg ci ñooñ xale bi moom nu mel non non mënu la ko nekk fii di la ko décrire koor gi dafa metti ah. waaw mais garaaw naa ko gérer naa ko gérer waaye man mi sax amoon naa lu ma la bëggoon wax nag waaw xëy na boobu ba léegi ay ay ay dañoo amul gul euh, rencontre boo xamante ni direct boo xamante war naa ko mën a expliquer mm-hmm. waaye Feuz xam naa ne seetlu woo ma ci kër gi nag waaw donte nag yaa ngi may defal des fois mu ñëw nga defal ndobu des fois mu bàyyi fi sama caabi du ma ñëw nga defal sama néeg ah, ah loolu la moyen des choses ñoo kër gi waaw waaw xam te tam yooyu yëpp cofeel la man wax dëgg neex yàlla Feuz gàddu nga sama coppati de. waaw te man xamoon naa ni bis mu la ko waxee. Eh, noppil yow looy wow yow fii laa la wax waxi pataas day dugal jigéen ci kër gi nga war koo régler ba ne dinaa ko régler wëlbati ko war naan damaa gàddu sa coppati. mais man man man farata laa yow xam nga sa bopp. ah ne ci yow lan laa lay doyee fara ak say ndomba ak say fas. mais fees man ndomba yi man bu ma tax a wax bu mu ñaar dafa dama sonn. fas yow lan moo tax ku la waay wax yow loolu yow lan moo tax bëgg bëggoo dara ay góor. bu ma ko waxee daal nga may saf berkeel la nii. ay berkeel waaw ah, du ma ne berkeel la ngay ngay ngay ngay xamul ma ko war a wax sax ma xaj. Vito Cocktail.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 41 06 06. Vite au jus, fait maison.